mbokk xam ngeen ni aj mooy juróom meelu ponk lislaam ñun ñëpp dañ koy faral di wax bis bu nekk ponk boo xamante nii tamit lislaam daf ko teg ci ay yoon ak ay règle ci règle yooyu bokk na ci kiy dem na mën mën boobule mënu poos a ngi ci waaye mënu wér-gi-yaram mi ngi ci moo tax dem màkka dafa nekk loo xamante ni réew yi koy organise ak réew ma nga xam ne fa lañ koy defee réew ma ñu koy defee di suñu xibla ñun réew mi nga xam ne ñoo koy organiser nekk suñu ndey notre patrie di le Sénégal ku ci nekk da koy saytu teg ko ci ay yoon fexe ba mu nekk loo xam ne dana rafet dana jekk te dana wàññil ñi koy soxla seen coono. xam ngeen ni loolu état Sénégal ca la nekkoon ba at mu ne ba mu moomee boppam ba nëgë mu daan taxawal commissariat au pèlerinage dénk ko ay doomam ñu gunge ñi nga xam ne ñooy dem makk taxawu leen. président de la république son excellence Macky Sall yëkkati kóolute gi yëkkati ko ba mu tolloo ak xolu doomu aadama yi fi ñu wékku ci ak ak Sénégal ni ko pénc mi jële mu jële ko ci commissariat def ko délégation général Arabie Saoudite tamit bu dee dañu war a waxan dëgg rek dana nu nangu ni ña ngay def seen kemtalaayal kàttan ngir aj gi di wàññeeku coono ba mu daan am di wàññeeku ci alaaji yi ak ajaratu yi ku xool aju 1960 rek boo ko xoolee ci image yi ba nëgë ni di nga xam ne def nañu ci wax dëgg yàlla ay jéego yu baree bari loolu tamit faw ñu nangul leen ko ñu gërëm leen ci ca liggéey boobale waaye doomu aadama bi fu bëgg-bëggam mën a toll fu doole xolam mën a toll ak yéeneem doomu aadama bi dafa am loo xamante ni nekkul ci ay yoxoom borom bi subhaanahu wa taala moom moo koy dogal bokk na ci li koy wane mbas mi nga xam ni daaw ba euh, ëlëm na àdduna bi soppi na tërëliin yi li nit ñi daan bëgg di def yépp moo xam ci sport bi la moo xam ci aada gi la moo xam ci leneen la même ba ci diine ji lépp daf koo soppi dem ba tëj jumaa yi tëj jumaa ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam tëj makkatal mukarrama kaaba ga loolu la nga xam ne nekkul lu tuuti kon nag dafa nekk loo xam ne crise sanitaire la mën nañu wax sax ni ëpp na crise catastrophe la catastrophe sanitaire la la muy jur nag ci wàllu doxaliinu koom-koom nekk na loo xam ne day laaw àdduna bi yépp kon nag aj gi mënu ci woon mucc moo tax ren ñaareelu yoon boo xamante ni mi ngi nii di tegaloo Arabie Saoudite seeni kilifa daal di jël dogal ni aj gi dañu koy yamale kese ci ñi nga xam ni màkk lañu dëkk kenn du jóge ci meneen réew daal di fay dem loolu yi tamit ñun jàngat nañ ko ci ni àdduna tëddee waaye jàngat nañ ko tamit ci yoonu diine l'islam te bi ñu ko jàngatee ba pare dañ koy nangu ci xel mais nangu ko ci pas-pas aussi te ngir loolu ñu bañ a nekk rek ñoo xam ne dañuy waxantu walla ñuy wax di ko teg rek ci seen yëg-yëg moo taxoon délégation ñaanoon sunu mbokk di Mouhamadou Moustapha Lo sant bi rek a sant bi rek a garaaw <laughs> di ko ak ñi mu ko bokkal parce que délégation dañu am ben service bo xamanteni ni seen liggéey moom mooy di def documentation ak information pour que lepp lu aju ci walu aj rek ñu fexé ba mu am fu ñu koy teg fu woor mom nak mom mo koy saytu ñu santone leen ñu def liggéey bi ñu génné téré bi nga xamné da fay nett li ak fep bépp yoon bo xamné amna lu ko galankor ca njalbeen ba nëgëni si kon nag du lu yees comme nag du lu yees histoire daf koy jàngale te sax euh, xam nga maa ngi wax sànq rek ni leen ak gi njëkk am gàllankoor suñ ko mënee tuddee noonu mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi en 628 mu jóg ànd ak njabootam ak way gëm yi jëm màkk ñu dogale ko ni ko doo dem mu dëpp kooku mooy gàllankoor gi ñu njëkk a gis ci wàllu organisation aj kon nag organisation wu aj yàgg na am gàllankoor waaye la muy mujjee mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa ndam rek la mujjee am noonu yi tamit la diine incha allahu ni ñu ko yaakaaree di amee ndam ci loolu. loolu nag moo tax bi ñu gisee ni nii lay demee ñu bañ lenn bettuñu ñu woo sunu mbokku voyagiste privé yi daje ak ñoom jàngat ak ñoom. xar kanam yi nga xam ne bu ci nekk war naa mën taxaw ci sunu kanam bu dee aj dina am ren mën naa amee nii mën naa amee naa mën naa amee na ca des ñu jàngat loolu lépp dajale ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñoom it ñu tànn ca ya dal seen xel ni bu amee nii defee leen ko nii bu amee nii defee leen ko nii waaye nit day bëgg sunu borom di dogal sunu borom dogal ni ren Saoudia nee na aj gi na mu amee woon daaw lay amee ren kenn du jóge ci mennum réew tàbbi fa di ko def loolu yi tamit ngir bañ yëf yi bettuñu bi ñu ko doon def ak suñu mbokku ci privé yi dañ doon jokkoo ak réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër Côte d'Ivoire yi Niger ngir ñuy bokk di am ay information yu wóor bañ a nekk information yoo xam ne dañ koy for noonu it la daan defee ay réunion téléphonique ak doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo fa nekk sur le plan diplomatique particulièrement avec le consul docteur Bakri Sarr pour di am information yi au jour le jour et à chaud ba yàlla dogal li mu dogal ñun ñëpp ñu bokk ñu bokk ko dégg waaye léegi loolu loolu bu amee ñun lu ñu mën lu ñu mën def démb daje nañu ak suñu mbokku voyagiste privé yi ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nekk ci association yi leen boot FNOP Renofus COSAPO COFAM ak PAVOS ñu daje sottente ay xalaat ci mbir mi ni mu amee ak ni mu tëddee bari na lu ñu ci wax waaye mën nañu cee tënk lii benn jàpp nañu ni war nañu fexe ba temps bi nga xamante ni moom moo nekk ci sunu kanam ajiwuñu ñu liggéey ci liggéey buy tax ñu mën a defaraat aj gi ba mu méngoo ak ni ñu ni lay Arabie Saoudite nga nous plateforme électronique ay euh, euh, nu carte à puce ak yu demee noonu suñu bañee jamono rawñu wala suñu jamono euh, koy sax nous. écrasé nu dañu war a ak jamono ci nous avons loolu privé délégation générale acteurs yi ñu jàng mbir mi seet Arabie Saoudite na naka la fay tëddee ñu xoolaat ci suñu biir naka la ñuy defaraatee suñu bopp te mu ànd ak courage li nga xam ne moom la laaj ci ñu ba ñu ba li nga xam ne moom la laaj ci ñu dëgëral ko ñu dëgëral ko li mu laaj ci ñu ñoddi ko ñu ñoddi ko ñaareel war nañoo fexe ba tëral tëralin woo xamante ni suñu jokkoo ak askan wi dana nekk lu leen di leeralal mbir mi naka la tëdde dalal seen xel wan leen i tamit ni ak amul du tekki ni àdduna tukki na nit ñi dalal seen xel gëm ni ëllëg dina am incha allahu taala te danañu ca dox la ñu ca war a dox sunu borom jox leen la nga xamante ni moom leen ca war a jox ñetteel ba ñu taxawal kuréel yuy tax walla kuréel guy tax ñu mën a jàppale ba pare mën di gàttandu ay ñàkk déggoo yoo xam ne war na mën a am ci biir acteurs yi jàppale gi mooy lan moom mooy ñu fexe ba ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerins yi kenn ci ñaar ñi bañ loru ci lii am loolu nag dafay laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy organisateurs yi te doon gàttandu aj gi am xaalis yu ñu jëloon jëlee ko ci pèlerins yi dafay laaj ñu delloo leen xaalis boobu ne

jàppale leen ñaan leen pour que kilifa yi jàppale leen ngir ñu mën a génn ci xat-xat boobu leen ci tënk wax naa leen ni leen gàllankoor gi njëkk am ci aj ma nga amoon en 628 ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi yéen ñëpp xam ngeen histoire bi mooy sulhul hudaybiya wax nañ leen ni leen aj gi attaque euh, ba mu tàmbalee ba nëga ni jàngal nañ leen li ci ëpp solo ci li ko gàllankoor mu ngi ci téere boobu incha allahu taala gis nañu ni ya jël nañu décision boo xam ne décision bu ñu mën a nangu la ñuy ñaan askanu Sénégal ñu recevoir ko ñu nangu ko ànd xel mu dal ànd ak gëm yàlla te xam ni yàlla moom mooy dogal te yaakaar ni lii nii lu gàtt lay doon lu ñëw di nattu ci biir jullit ñi waaye day tax ba bu nuy dellu màkk ñu dellu fa ci anam yu gën a jekk yu gën a rafet yu ëpp fly ci yaram ci ñi nga xam ne ñoom ñooy allaaji yi ak ajaratu yi gëm nañ ko ci ruuxu aaye ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratul fatxi bu muy wax laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bil xaq sunu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni deggal na gis-gis bi nga xam ne vision bi nga xam ne gént gi nga xamante ni ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam gisoon na ko ni dafay dem makka ànd ak ñoñam def li nga xamne mom la wara def mu ñëw ba ci deug ba ñu delo ko subhanahu wa taala wane lolu da fay nek deug dana duggu mak en toute sécurité et incha allahu taala gis-gis bobu le moy wéy ba abdil abidin dina nu delu mak en toute sécurité de corps d'esprit et de poche assalamu alaykum wa rahmatullah